ma yàq sa ngan mu ne kon loo am loo am mu ne ko mu ngi ni téyel xamaguma bàyyi maam Cheikh Omar téye muy dafa bég ba aj ko ci kaw xanaa déggoo waskur fil kitaabi idrisa innahu kaana sidiqan nabiyya wa rafa'naahu makaanan aliyya mu aj ko ci kaw ne yàlla nañ ko dégg ban sëriñ moo fi ne tamaam Cheikh Omar jaarul ci yow mu gaawee maanaam nan la eh, yàlla ko ba dëkk bu mu fanaan maam Cheikh Omar dégg làkk ba saa yu xëyee jàkkaarloo ak yonent bi taway juróom bu jigéen moo ko liggéey ni moom ni mii asamaan lu mii suuf xale yi nga xam tey ñun sëyu ñu defuñu dara dañuy foo maanaam dégg dégg naa ci fit fit a ngi ci maanaam ñoom danoo amoon fit jigéen ñooñu waaw mais fitu fitu fitu fitu diine la ñu am ñoom muy benn waa daan faala ah. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ñaare ba mooy am nañu per amoon nañu personnalité li nga xam ne jigéen ji ko am tubar fakal la ñàkkoo dara Mohamed personnalité ñetteel ba mooy doylu woon nañu ah. alxanaatu kanzun laa yuf naa maanaam doylu nañ xam nga euh, dama dégg tonton Moussa mu ne ku baax borom alal bi ki doylu am na loo xam borom alal bi amul ko mu ne ki doyloo jaaxal borom alal xam nga tax da ngeen di dëkk mu xam ne yow mii soxla nga dangaa xiif lekkoo nga koy xaar pour mu ñëw toroxlu ci sa kanam du la faale day dem torox loolu yàlla parce que xam na li nga yor yàlla la ko jox te bu buntu yàlla yàlla lanal ko falamma bada li annahu laysa maarabun siwa babikal xaami madatu yu dayati loolu lay gëm moo tax mu ne borom alal bi ki ko jaaxal mooy ki doylu ki ñàkk ba pare doylu Mohamed ki doylu am na loo xam ne borom alal bi amu ko ko xeebut sa nguur di nguur jigéen li koy riichal mooy toog ci peggu ndeyam ba góor ñëw jële ko fa jox ko la mu am donte de cent cinquante mille la nga nangul ko toog ca këram di ko sëyal lu mu for ñëw jox la nga am personnalité biir kër googu it nga am loo fekk incarné ñaara ngi de sa xarit bu jigéen ñëw seet si la gis li la sa jëkkër defar mu commencé di sarme sa jëkkër nga génn di defar ree añ bàyyi sa jëkkër ak sa xarit ci saal bi sa ja sa xarit commencé saboté say melokaan uh-huh. nan diw ni ngay yakke ni ngay nangam sa jëkkër toog di ree yéen ñaar ngeen di def ay gestes mu fexe ba commencé génn ak sa jëkkër te pourtant mu nga am jëkkëram lan moo tax parce que ay or yoo moo ko xañ jàmm waa ji commencé découvrir noo mel di la dig la jox muy benn ak jigéen ji sëy ci kër lan mooy ndayu lan mooy ndayu lan mooy ndayu ngay am xarit boo xam ne sax yow yow sa borom kër bu sa borom kër bu wàcce da lay fréquenté man xaritoo ma ko kenn du yoon ma bokkal ak baay du yoon du njëkke du mag du rak du kenn maanaam man sama jëkkër bu wàccee sama téléphone yi sànni naa ko xamatuma fu ma ne suñu waa sax dañ koy wax dañ naan moom bu fa waaji nekkee bu ko sax lijjanti soxlu ku seet si benn yoon dootoo ko defati dafa am maanaam sama jëkkër bu fa nekkee ku seet si benn yoon ku dof ba ñëw dootoo ko defati. parce que aw jotu kenn ku dul moom boo di def loolu est kenn dina la suufu ci sa na am na ku may uh-huh. a uh-huh. ko esthétique. ci uh-huh. saasi man ko ku man du ma jabaru jaam. dëgg muy benn c'est pas sûr. man ko ñaareel bi. samay doom laay esthétique wala sama ay wajur wala sama ay soxna. amul keneen koo xamante ne dinaa ko esthétique. kuy def anniversaire nag mën naa la defal vidéo mais dama la ni la yaa Uh-huh. bari na jigéen jamit ju nekk ci kër uh-huh. ñàkk xam responsabilité bu ko war ba uh-huh. mindaanam devie place am loolu wér kée nga la sëy du màgget de déedéet ñi ko séq ñoo koy màggetal mais ba tey bu ñu ñëwaatee ci thème bi Mouhamed fi nga nekkoon dafa solo mm-hmm. ci ñu war a bàyyi xel njaboot gi ah. am na ci am na ci xale bu jigéen boo xam ne mm-hmm. nee na ma samay semé jeunes ak sama yaay ñoo ko mujj finalement ñoom ñoom mujj di di bokk semé jeunes yu Mouhamed Mouhamed def naa toog nañu fi émission kenn woote fii tegal ñu kaay yu mel noonu waaw léegi xale yi naqar boobu ñuy ñu ñu ñuy dund ñu bari na fi ay parents yoo xam ne tey yaa nga naan xale bi xale bii xale bu rew la xale bu yaree di ko la xam nga lu tax day fekk yaayam ak xaritam toog mu ñëw dugg ci saal bi jël commande bi taal teg la ay tànkam jàpp lu ko neex fekk yow gan gi xamoo lu xew mais moom ak yaayam la yaayam ma ngi def ci kër gi loo xam ne xolam mi ngi dagg munu ci dara léegi day defante ak yaayam yow nag xam nga xamoo ci dara xale bi dafa réew xale bi dafa ñàkk kersa xale bi dafa nangam xale boobu mën na dem sax ba xëy xëy jam yaayam mu dee parce que li ngay dundloo xale bi mooy métti kon moo taxoon man ca commencement ba li ngay def bu nekkee mënatoo koo bàyyi mais nëbbu ko xale yi yaa Seyda ndax yaa ngi natt xale bi génn ñëw fekku fa yaayam mu ñëw ci kër gi gis yaayam di yegsi di defaru yaa Seyda xel mi commencé di liggéey sama yaay fu mu ne sama yaay lu mu doon def période boobu lan la yëg. lan la yëg waaw lan la sama yaay doon def. ak ak ak fan la demoon ak ban góor maa ngi nuyu sama papa Abdoulaye Lam di ko ziar bu baax a baax suñu baay ak jeesneer bu rafet bi gis nga ko moom tabarakallah taalibi sëñ mm-hmm. dara déedéet parce que am na lu ñuy jomb seen àdduna itam am na bés munuma ñu toog benn ajuma comme ni Pape Abdoulaye Lam ne ma Ameth def naa 27 ans ci média bi. la li la ci dimbale mooy moytu. dëgg la xam sa tànk. ak la bëgg a la. yaay dafay sagal doom. dëgg la doom dafay sagal yaay. sagal gi nag du weesu lu sàmm sa der rek. xam nga lu maanaam sam sa der ba sa doom comme li ma doon waxee du jaa ñëw nag ay mooy jënd ma ñëw yow bi nga xam ne naa sa yaay nangam sa papa nangam xam nga doom ni muy sagale yaay mm. ñu dégg sàcceey sa xel dal yow yaay mi tëdd xam ni du sama doom du sa doom paasewul sax tëdd ba guddi ñu dégg day naan sàngara nga xalaat ñu du sa doom yaa sida dama toog dama toog kilifa gu baax ñuy waxtaan mm-hmm. am lu xewoon ci benn dëkk mu ne ma est-ce xalaat nga ma fa ma ne ko mukk ci àddina ah. xalaatuma la fa parce que xam naa doo jaar foofu bu nit ñi foog ni rek doom day màndi rek ñu ne ndeyam moo liggéey fekk yi nday liggéey na ba dee doom saboté lépp dëgg la léeg-léeg nday dina liggéey ba dee doom nekk sàcc yuxrijul xayya min al mayit wa yuxrijul mayita min al xayyi wa tarzuqu man tashaau bi xayri xisaab am na beneen aaya te mooy innaka laa tahdi man ahbabta walaakinna Allaaha yahdi man yashaa yàlla nee na maay jubal ku ma neex nañu bàyyi nday bu liggéey mooy mhm. ay immeuble mhm. nday bu liggéey mooy ay étage ay ndaye moo ko fi sonn annaasu muxtalifuun yàlla moo yor ay wërsëgam daa mel ni wërsëg nga may wax sida yàlla moo yor ay mbiram te wërsëg seeglu seexluwul kenn déedéet xoolal wërsëg ak xam-xam ñooy wër na sëg ya ba génn xoolal xam-xam xam-xam waaw seexluwul bandi mën na am xam-xam waaw kàccoor mën na am kàccoor mën na am xam-xam ku rafet mën na ko am ku ñaaw mën na ko am dëgg la xaalis seexluwul mhm. ku rafet mën na ko am nit du ñaan alal wërsëg lay ñaan bu barkee mayul yonent bi nee na génn àdduna waa kër gi di yëg tribunal di wàcc lan la ñuy xëccoo benn immeuble bu fi bàyyi bàyyi juróom benn nit juróom ñaar ñu xëccoo li fi benn gor bàyyi kooko leen gën a gore ba pare boo seetloo dégâts am en général duñ ci tudd góor jigéen rek la ñuy parce que jigéen moom moo sensible yonent bi nee na maana xala mayul waalidun wayjuru waladuhu doom mayu ko xayrun lu gën min adabin xasanin ci yar bu defe naa yaa ngi sant sa yaay yaa ngi koy ñaanal manit Ndiaye maa ngi koy ñaanal Adja Fatou Ndiaye yaay booy maa ngi lay ñaanal bu baax jërëjëf Ndiaye ndax fàqal nga ñu yoon wu set fàqal nga ñu yoon wu rafet tubar fakàlla fu ñu naax fu ñu neex daago ci Grand Dakar benn wax rek la ñu dégg yéen lu ngeen amul rek yéen a ko yéen ko yéen ko utul mais seen yaay lim fi liggéey fii ci digg Grand Dakar nga xam ne say say moroomu jeeg ñoo la ko ñoo la ñoo la ko waxal lañ naan jigéen wu jëm ak ay moromam daanaka duñ ko seede lu baax waaye moom de ay moromi jeegam ak ay wujju péccar goom ba ci ay wujjam ñoo doon taxaw naan la sa yaay de nangam nangam nangam te boo fa defoon leneen it noonu lañ koy yégee kon ñun fierté bi ñu am di dund ci Sénégal gi te xalaatu ñun xanaa ñun mais luy jóge ci yow mukk du am kon yaay ñu ngi lay ñaana bu baax yàlla nga gudd fan yaa Seyda benn waay yàggul dañuy waxtaan ci lu mel noonu ma ne ko maa waatal ci yàlla bu ñu jaxase waatoon carte ni kenn ku ne juddool fu la neex barke alxuraan ma judduwaat sama baay bii ma jur man ma judduwaat ci sama yaay jii ma jur man ma judduwaat ci sama yaay jii ma jur billaahi li may bëgg bëgg Seydil Hadji Malick ñu ne ma ñi sant si ñu ngi nii ñi sant Mbàkke ngi ñi sant nanga ma ngi nii Mouhamed Mbaye xoolal sant bu la neex ma ne yàlla delloowaat ma mbay gi a tudd sama tur baay jur delloowaat ma ma ko oh. yàlla def na ne ñu ngi dund uh-huh. waaye saa yu ma xëyee yem ci ñoom am mbég xam ne uh-huh. yoon boo xam ne tey uh-huh. ah, ah bu ma rombee nit yaa Seydaa mu ni ma bëgg naa la du ma ko damay sentir ni amel naa sama ay waajur lu ci yow ci ñoom la njukkal ci ñoom man nag sama ay doom wax ñu déglu la. waaw sama ay doom ni dama ni dama ni. ñëpp ni pat. waaw loolu liggéeyoo ko de. liggéeyu ma ko de. ñun suñu way juru ñoo liggéey lu ñu nekkee ñun ñun ñu liggéey ñu dara. yaay mooy defal loolu doomam. bëkki démb damay tooñanteeg moom naan ko papa man ak yow ku dàq. Uh-huh. mun ma fi mu toll nii ma dàq mais maa la dàqoon. waaw waaw ndeysaan am am ku xumma mu ngi fii. Uh-huh. yàlla ku may teraanga la moo ma ci saasi. rek uh-huh. dama ko def estat mu ne ma dama xool sa kilifa bu uh-huh. mag mu may dégg uh-huh. immeuble yi ci ginnaaw am na yum ci moom pour ma bañ a tudd turam daf ma woo ma mu dama xool sa statut ak sa papa jooy uh-huh. ma ah. nekk lu am solo Mouhamed ah, eh, eh, yow waxoon woon lii de eh, ñun ñoo war wax ñu Bakary waxuñu woon lii. ndeysaan maam Sidi déggool ak Bakary mais Mohamed <laughs> déggul wuy ma. non danoo ñaar fukki minute lan lan lan lan raté tey Mohamed nga di déggoo leen <laughs> xam nga xam nga li nga wax sànq uh-huh. ci seen yaay Adama Aïcha li mu defoon am na jigéen ñu koy def ñu toog nañ suñu wayjur yéen nettali ñu ni yéen seen bàyyi bu ñu mësaan takk jabar seen bàyyi te màkk dañu autorité roon dañuy wax naan su dëkku merul gan du toog comme pa boobu nekk ci théâtre kii théâtre polygame mm-hmm. théâtre bu neex a théâtre bu bari ay enseignement enseignement enseignement la li ma wax leer na man juum ma dégg nga balaa ay si dañuy bindal xoolal théâtre boobu dafa dafa dafa jar a bàyyi xamul tax mhm. dañuy jàngale jikko sénégalais yi nu mu mel maanaam ëtt yi li ciy xew mais li ma ci gën a neex mooy xale bu góor bi ki yor kër gi dama fàtte turam ki yor kër gi waxal Aysa mu envoyé la tur bi jëkkëru ummu ki xale bu góor boobu maanaam ni ko yàlla dénkee salaire am dafa am ay jàngale yu rëy yu ci nekk mooy ki nekk ci polygame jëkkëru umu léegi ñu envoyé tur bi bàyyi ko xel li muy def dafa am solo xam nga lu tax kër gi li muy rëy rëy rëy rëy rëy ak ak ak ak ak li liñ koy waxal lu bon yëpp maanaam salaire bu ndaw bi yërmande bi mu ci am boot papaam ak papaam ni mu jéngeeg ni mu mel ci théâtre bi frère am yi sœur am yi ñu mel ak ak ak jabari papaam yi nu ñu mel xoola Mouhamed mu bañ waa kër gi génn di ñaan yi ay jigéen lañu. am na ku jigéen ku ne ma buu la tudd. buu jërëjëf merci beaucoup buu waaw. yaa Seyda maa ngi maam kon nee maam nee na may nañu fukki mbir ah, maam nee na nañu fukki mbir li ma rafet woon rafet waaw ah, ko mu taxawu <laughs> maam yaa Seyda eh, maam yàq ma hmm. nañ wàcc yaa ma hmm. loolu dafa jaraw leeral maanaam hmm. buu moomu rôle bi mu joué ci théâtre bi borom alal yu baree bare nañ ko nañ ko def xam nga lu tax kër gi mën na jax trop mën nañ ko xas génnal defal lii mu ne déedéet moom salaire am bu daw bi moom lay uufee ay rakkam ba nga xam ne rakkam yooyu du ñu génn di uti ci góor dara du ñu génn di dem di moyu yàlla bëggul ñu xiif kon am na fi ay borom alal yoo xam tey seen rakka ngi tasaaroo ci àll bi di dem di moyu yàlla xam nga lu tax seen seen seen seen seen alal dañu am xam nu ñu def dem jël seen jabar ak seeni doom beroog ñoom bàyyi seen rak lijjanti wuñ ci ci lu ñu nekk ndax lekk nañu ndax naan nañu ndax sol nañu yére ba seen rak yooyu am fi dem ci yeneen i góor ñu leen koy jox kon théâtre boobu li tax ma cité ko cité bu moom mooy rôle bi nga xam daf ko ci joué am na ñu bëri ñoo xam seen njaboot yaa ngi tasaaroo te njaaloo ya ñuy defi ak di sàcc ak di di di defi ñoom ñoo leen seetaan ba ñu génn di di defi loolu kon ñi am alal